والأراضي والهواء بها مشارك ليروت من شكه بنا أجب وسلي برسليم على سندي محمد وتلفهم سدد لساني نوير جناني صفي أماني وسد بقائي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نيجي نوي نيب maanaam di siyaare nag bu baax baax rawatina ci ci ci waa kër sëñ baara ci xarifaal ñi nga xam ne moo ñoom lañ tuddee bis bi yaakaar naa su ma ma jumut di siyaare ñëpp siyaare waa penc mi kon daal xamaa di jéglu bu baax a baax ci waxtaan yi jumbul na ma ko bëggee woon dëgg mën naa bañ a nekk te noona waaye xam naa ci njëlbeen bëggoon naa bala maa sontu sëñ bi ma wax loo loo xamante ne waxoon naa lu ni mel ca kër sëñ Basiiru ca ba may wax ci franc-maçonnerie daanaa ca waxtaan loolu sax moom keroog laa laa leen wax ne ci laay noppee wax ci franc-maçonnerie ndax yóbbu na ma ci diggante ñaari noon soppe yi maanaa sëriñ si noonoo ma ca maanaa ñi ñi nga xam ne ñoom la ñuy jiiñ franc-maçonnerie di mere ma ca ma xam ne kon nag loolu kon jëru ko ginnaaw ñi ngay ñi nga bëgg a leeral franc-maçonnerie yi seen i liggéey ñoom dañ laa jàppee am noonu ak franc-maçon yi kon ñoom kon ma ma génn ca waaye keroog waxoon naa baat boo xamante ne danaa ko ko waxaat mooy ne kat man de génn naa ci waxtaanee ne franc-maçonnerie waaye képp koo xam ne nag da ngaa dëkk sëñ sëñ Tuubaa moom maa ngi ci sa kanam loolu loolu moom loolu moom xeex la boo xamante ne du ma ci jóge salafi gi it bañu ma leen ndax sëñ Tuubaa waxoon ne fala tuaadu man raytum faahu yuxriju laa ilaaha illallaah man bañu ma ci kenn képp xam ne ab jullit nga noo ko noo ko doone ba ñu ma la waaye nag salafiye gi nga xam ne damaa yëg xam ndax usul diin la ci la génne jàng naa ko kon donte ne dama doon taxawal waaye xam naa ci dara xam naa leen ñoom ñoom yaakaar naa jombul yaakaar naa gënuñu maa xam ñoom seen passeport bi yaakaar naa moom xam naa ko xamin woo xamante ne ñoom yaakaar naa gënuñu ñu ma koo xam waaye yi nag ku ma gis ne da ngaa dëkk sëñ Bamba moom boo dee julit nga it man ci sa kanam lay taxaw loolu loolu moom ci moom kon téléphone yi kon nee nañ xam ne man ba ñu ma leen ngir seen dara su su bañ dee am kay ki may bañ mooy ku bañ sa sëñ Bamba moom loo man di am bañ naa ko loolu loolu kon man foofu fulaane bëggoon nit mu leer nga nga xamante ne kon téléphone yi kon ba ñu ma leen waaye sëñ Bamba ji damaa gën a lépp na kon waaw kon yaakaar naa laaj bi moom salafiya du maanaa wax ji du waxee dara baat bi concept concept dafa am man mii maa ngi tudd Moustapha kenn tànnu ma kenn tànnu ma ma tudd Moustapha sa sa sama turoon xanaa kon tànn nañ ko waaye man kenn tànnu ma aw tur képp la. salafiyee moom aw baat rek la boo xamante ne dañu la mi mi ngi mel ne nga ne parti réew mi boo cee bindiwut teewut maanaa ci ci ci réew mi mi nga bokk loolu moom du waxee dara nga xam ne baat rek la. ki ki ki xamul ne moom da yaakaar ne ñii li ñu nekk ku ca nekkul nekkoo ca la mag ñu nekkoon déedéet albuuti yu albuuti yu Abu Shahid albuuti yi syrien boobu bind ci téere bu am solo asalafi féetu nee na marxalatun mubaaraka la masab islami yi walla moom loolu leer na maanaam marxala boobu tey mag ña nekkoon njëriñ ànd ak Sëñ Tuubaa ku jóg daal ne man de li may wootee mooy la mag ñu doon dund na xam mën naa nekk waaye nag du tax ne la keneen di dund nekkul la mag ña ña dund loolu ab terme rek la kon yaakaar naa kon laaj bi kon bu dee kon kii la kon mën naa am kon kii na foofu.
léegi ñuy laajaat nag ne ginnaaw bi ñu xamee ne kon tur la daal man mënees naa wax ne tur la woo xam ne kon amul maax naa daal waaw léegi li ñu bëgg a laaj nag foofu mooy ñi nga xamante ni nag jàng nañ ko ba gëm ko jàpp ne. képp koo xamante ne nekkoo ci mashab boobu noonu nekkoo ci mashab bu wér loolu nan lañ gën a mën a leeralee nit ñi ne loolu ñu wax ne baat bi amul cëslaay nan lañ ko gën a mën a leeralee nit ñi ndax tamit bind nañ ko ci ay téere danañ ci def ay waxtaan ba nga xamante ni am na ñu bëree bëri bëri ñu nga xam ne lu wax jooju noonu dugg na ci seen bopp léegi nag nan lañ mën a leeral nit ñi que ne ci ay ci saraa bu gën a leer que ne baat boobu. ni baat bi rafete la ne ca biir rafete wut noonu.
kon li ngay laaj kon mooy salafiya islamiste yi ñoom seen pas-pas lan la lu am solo la gone yi ci war nañ koo xam mag ñi sax dañ ko war a xam islamiste yi seen bopp waxtaanee naa ko ca fële ca kër sëñ Fallou Jumaada am na islamiste boo xam ne keroog daa ñaxtoo xëpp ndax la may wax moom xamu ci dara dara li ci xamut maanaam moom moom maa ko gën a maîtriser moom la la ci lam gëm danaa indi ñoom lañ gëm lu mu doon ba xam nit dana ko gëmam déet maanaam ñoom yàlla ji njiñ gëm yàlla islamiste ji bokkut ak su su yàlla noonu wax la joo xam ne ba ma ko waxtaanee nee naa borom xam-xam bi laay waxal yàlla ji islamiste bi gëm bokkut ak yàlla jiñ gëm yàlla ji islamiste bi gëm soo demee ca isbaatul xaddi lillahi bi annahu jaalisun wa qaa'idun téere la boo xam ne mi ngi ci google ku dem soo ko tappee gis ko téere boobee maanaam onoon bi képp baxut titre bi képp baxut nee na téere buy saxal ne yàlla day réegu ca ca kaw sées ba da cay toog qaa'id ci ci arab mooy réegu diju ba ba ba ba laal la ngay diju bu dëgër yàlla noona lay def téere boobee islamiste yi mooy seen omda ci ci ca lañ gëm soo demee ca rijaalul xuri ci xuseyri imaamul junne di siri seqati karax yi ñëpp rek albusaami ñëpp lañu ñu gëm mooy ne yàlla amul limite ibnu taymi rahimullah moom gëm ne yàlla da dafa am limite maanaam gëm ne yàlla limite limite la am limite nag maanaam islamiste yi bu ñu xamoon baat bi lu muy firi danañ xam ne limite moom lu lu lu lu ko am lu nekk soxla woo nga nga leneen ndax li lay limité lu nekk li li nga xam ne moo lay limité loolay ci yow ko ni soo ko amutoon kon doo mën a am limite loola ko ci kon moom waaye nag ñoom ñu ne ca téere boobu nga nga xamante ne la la muy saxal mooy isbaatutul xaddi lillah ne yàlla am na limite ñoom ñu wax ne yàlla day jëmm la ibnu taymi rahimullah ci ay téeréem donte ne man sikk laa sakka ji ba xam ndax téere yi ñu ne moo ko bind lépp bind bind na ko njët ndax boo demee ca madaari ju saalikiin ibnu taymi ab suufiyanke dëgg la wala yu dëgg la kaamil la ndax soo demee ca fatawaaw ya da nga dégg muy wax naan bu ñu gisoon benn sëriñ boo xam ne daa nekk ci marché bi ànd ak dongaam dugal loxoom ci poche bu jàmbur kenn du ko atte waaye duñ nangu dongaam yoroy ko ci léegi te loolu yaakaar naa kenn mënu koo gis ci fekk te Ibn Taymiya rahimahullah wax na ko moom Ibn Taymiya ak salafi yoon ñu ne yàlla ji nga xam ne ñoom moom lañ gëm yàlla joojee jëmm la am jëmm yàlla joojee am na kër ca àjjana am na kër ci ci ci ci ci àjjana siisam boobee bu ci toogee dana des ni ñetti baram maanaam maa léegi siis bu du ko fees yonent bi alayhi salaatu wa salaam su bis bañ cee bu dikkee day nuyoo fëgg ñu ubbil ko kër ga mu ñëw fekk fekk suñu borom toog ci ab siis siis boobee bu ci toogee dana des ñetti baram yonent bi fay toog nee ñu nee ñu kat maanaam su ci maanaam su suñu borom bu toogee ca ca xarsh tànk bi ma ma ma koy teg ci ci ci ci kursi yu ñu ne bu jaaxalee ne ci siège bi maanaam day tegale ay tànk moo tax moo tax ñu salaf yi ne araamal nañ kuy tegale ay tànk ndax suñu borom noonu lay tegale ay tànk. maanaam ñoom ñu wax ne li li may wax de téere bi de isbaatul xaddi lillah islam si ñoo ko bind ma nga ca google ba ñu ne suñu borom bu toogee ca kaw siège ba day xiit xiiji ya ittu taxtahu atiita day xiit xiiji lu ko waral sunu borom dafa diis kan ñu ne ibnul mubarak nee na sunu borom daa diis ba bu toogee ci siis ba day xiit xiiji day mel ne nee na maanaam tegu fas gu bees boo ci walla gileem boo ci toogee noonu lay xiixi ga noonu noonu lay xiixi jëmuñu ci ñoom ñu ne yàlla bu toogee ci siis ba day diis gan ba sax malaaka yi sax dañuy day metti ci ñoom kenn li doon ñu ne saa bu bu adduna bi mooyee yàlla ba yàlla mer yàlla day mer ba ba funki ba dis ci kaw siis bi ba malaaka yi maanaam sonn waaw ma ne kon ki yenu siis bi ak ki ñu yenu kan moo ci ci ci ci ga dis yàlla kon bu dee yàlla dafa am kër dafa am ab siis muy toog dafa am kursi bu muy teg tànkam waaw jëkk muy bind yooyee kon fan la toogoon fan la tegoon tànkam fan la fan la dëkkoon ah ñoom ñu ne ñoom ñu ne ñoom ñu ñu indi layal ñu ñu ñu laaj leen ni leen waaw yéen yàlla ba mu bindagul dara fu mu ne woon ñu ne kaana fi ama in bayda wala fii sahabatin bayda may leen waaw kon sahaba bayda boobee niiru weex woowee yàlla newoon ci ca biiram njëkk muy bind dara kon niiru kon ak ak yàlla kon ñoom ñoo ñoo fi mas di di nekk soo ne ne waaw may la kon yàlla kon ak loola kon musuñu fee jug kon kon kaana xadimay ni isbaatul xadimay ni la kon la te loolu moom kenn du fut ba ba koy nangu maanaam sunu borom li hadis ba wax ñëpp d'accord ko. kaana allahu wala shay ama kon kon ñooñu nga xam ne dañoo gëm ne ne yàlla mi ngi woon ci ab saxaaba wala mi sunu borom mi ngi ci bu toogee séex ba séex ba day xëy xëy ji yaakaar naa ab kajoor kajoor moom mënut a mënut a gëm yàlla jojo kon yàlla ji islamiste yi gëm loolu téere la ñoom maa séem téere la isbaatul xaddi lillah lil imam addasti soo demee téere ba ci moom waa ji nga xam ne moo ko taqiix ceew njëlbeen nga wax na ne al albani seen waajur yi nga xam ne moom lañ fonk lool ci ci hadis bind na ca maanaam maktabatu zahiriya ca Arabie Saoudite wax na téere bii de moom lenn hadis yi ci ci rot amul lenn lu koy dëgëral ci kitab ak sunna albani dàqan téere bi yëpp maanaam yéenuwul maanaa yàlla do doon jëmm ci muñu ca de ñoom nee ñu kat yàlla maanaa léegi su waa adduna bi maanaam bis bi sun bis bi bu jeexee yàlla ba balaa dossier yi accès ci moom guddi lay doon waaye ñoom xam nañ ko Amérique day daa mel ne ñoom bu nekk suba noonu ci ci guddi lañu ne sept heures de temps dox na fi xanaa wala. ñoom ñoom nee ñu bu ñu mooyee yàlla ci bëccëg gi balaa dossier yi àgg ci yàlla guddi lay doon ah sëñ bi kon yàlla kon kon kon kon am na kon waxtu wu ci wóom dul xam dara maanaam islamiste yi ñoom seen yàlla noonu la mel. yàlla joo xam ne balaa xam du si la la la la ko malaaka yi indil yàlla la ci yàlla la joo xam ne day mer ba ba ba ba funki su meree ba funki malaaka yi yenu aras day des ci day des ci ñoom bu ñu sàbbaalee ba yàlla bigaat maanaam funki ba deñ ma ma maanaam mu mu mu weer ku ne ku ne xam ne moom loolu jàkkaar naa ci xel la moo gàtt rek joo ju yàlla moom. doxi dara am na ci am na lu ci ci gën na kii maa ne Ibnu Xabbaan sax borom saxi ba dem na fu ñuy wax Sajistaan ca Asia Suxra ca Asi ñu ñu laaj ko ne ko yàlla ndax am na xadd mu ne déet amu ko yàlla amul xadd ngaa yi dañ ko génne Ibnu Taymi rahimahullah nee na Ibnu Xabbaan day maanaa jàmbaar la waaye nag weddi ga mu weddi woon xadd moo tax gaa yi taxaw ci ci moom waaye nag yow seelul seelul ne kon yow maanaam islamiste yi bu bu ñu dee kontar ab sufiyanke di kontar ab chiyan yi lu ko waral chiyan yi bi sufiyanke bi ñoom dañoo dañoo naf yu alhamdulillah yàlla amut limite kon kon noonu yàlla ji ngëm bokkut ak yàlla ji islamiste yi yi gëm loolu loolu moom ku ci kon ci tënk kon moom leer na ne ne kon ñoom ñoo ñu di indil li li ñu indil sëñ Bamba kuréel sëñ Bamba kenn gëmu ko. junne di ba tey jii benn suufaan gëmu ko ab cheikh yi gëmu ko maanaam xalaat la boo xamee ne Abdullahi nu nu nu nu Mubarak ak kaxam boobu nu nu nu noo xabaar bàyyi xel ne kaxam boobu noo xabaar nag maanaam ab siif la woon. kaxa boobu ndax par ab siif la la woon ab jullit la nag ahadis yi maanaam marwiyaat li ñu li ñu soloo ci moom yonent bi waxu ko moom day wax man am na ñu wax ne mën naa am li muy wax da koo jëlee ci ci tawrat waaye moom alxuraan amu ci sunu yéen amu ci.
jërëjëf jërëjëf sëñ sëñ Moustapha waaye bala maa jàll ci sëñ Maxtaar rek léegi danaa la laajaat benn laaj muy kon pas-pas boobu nga xam ne kon léegi ci nii nga ko leerale wér na ne kon luñ jéggaane la. mooy ndax bi may wax léegi liñ jublu ci xulul mustawarada yi waxuñu rek lu amul fii waaye lépp loo xam ne kon dëppoowut ak lislaam kon ndax taxarif bii nga joxe ci nii nga xam leen ne mooy xaqida salaf yi ñoom loolu lañ gëm loolu dàqoon na lool ak ni alquran ak sunna jàngalee ilahiyaat ni ni ñu war a jàppee suñu borom. léegi nag lan lan yan asaar maa hiya al asaar al mutarattiba ala misli hadha al i'tiqad bu yàlla defee tey. am ñu jug bay ñëw di jàngal di fi jàngale si lu mel noonu yan mooy nag jeexital yi nga xamante ne ni mën na koo jeexital ci biir société bu mu dugg loolu pas-pas bu mel noonu.
laaj la bu am solo Tombouctou démb rek islamiste yi ña ngay màbb bàmmeel ya bàmmeel yi li li li waliyu ya lu am solo la loo xam ne jege na lool de lu mën a agsi fii la Tuubaa gi loolu lu mën a agsi la ñoom dañoo gis ne ñoom ñu ngi ñuy tuddee noonu noonu. xubur yuun jaamukati xirim maa jaamukati bàmmeel yëmuñu yëmuñu yëmuñu ci ci lool de ñoom nee ñu képp koo xam ne da ngaa gëm ne yàlla amut amut limite kooka sañ nees na laa rey sa deret da nga na de islamiste bi bu jël ab bomb dugg ci dugg ci jumaa ji maanaam naa léegi falaxe ko koo fi ñu toll moom daa gëm ne shahid la daa daa gëm ne jumaa ji xirim la Abu Bakr al-Jazairi sëñ Moussa Wadia jatara nett la ma ne fekke na ko Madina nettul ma war xanaa sekki ne cëf dul salawaat wata bu mutaslim nee na Abu Bakr al-Jazairi di leeral leeral ba ne ne kat arab bi suul di xërëm yi benn xërëm moo fi des mooy muy barab bi barab bi barab barabu ci cent bi moom pour moom xërëm la nee na nee na sudaan ne yeeg ak maanaam jamono yi yuuxu maanaam police yi kii ko ñoom kon ñoom maanaam li nga xam ne moo mën a taratub moo mën a moo mën a moo mën a gongi koo ci pas-pas bii mooy sunu sunu sunu sunu sunu Tuubaa gii islamiste boobee saa bu dikkee ci fii li mu xam nga doon nañ ko wax ne kat am na ñoo xam ne ni bind nañ ay tract wax ne kat léegi julli ci jumaa ji xaraam na. loolu wér na moom ci wér na am na amut wér na maanaam pas-pasu islamiste yi ñoom dañoo dañoo gëm ne julli ca jumaa ju joo xamante ne maanaam ab bàmmeel fa moo xam Madina la moo xam feneen xaraam na. ko ko bañ gëmee bañ gëmee nag loola képp koo xamante ne da da ngay maanaam léegi da ngay tabax ab bàmmeel maanaam wël yu nga ci nga ci nga ko jàppee ci wàll leen ñoom dañ laa jàppee ne ab yëfër nga. kon nag yëfër nga ne kon dagan nañ sa sa sa deret dagan na kon moom maanaam suñ ko ne yi nga xam ne ci Touba bari na de Touba bari na fi loolu ay islamiste bari na fi ci foofu bala ma laa jox kàddu gi maanaam suñ kilifa yii war na ci war nañoo bàyyi xel lool danse bi ndax kat ah xam naa moom jëmbul man yëg gi ma ko yëg bokkut ak ci ci ci ñoom duñ ko yëg waaye ci waaye ñoom. fañ jëm dëgg dëgg mooy sunu sëñ Bamba ji la wala moom la ñuy ji.
jërëjëf sëñ Moustapha xam naa danañ ñëwaat ndax xolool yooyu ñu àggale ci yu jógee ci sarq ak sëriñ Makhtar Faye dégg nga sëñ mu sëñ Moustapha li mu wax ci xoloolul mustawrada yi ñu tàmbalee ci xolool alxaqadiya yi nga xamante ne ni maanaam pas-pas yi nga xamante ne ni bokkut ak ñun pas-pas yi nga xamante ne ni moom lañ ñu jàngal fii te ñi ñu ko ñi ñu ko jàngal tibbee ko ci alxuraan ak sunna kon wuute na ak ñun liñ xamoon ci lislaam wuute na tamit ak suñu waaxee bii ñu nekk. li ma la ciy laaj kon sëñ bi yow mooy léegi xaqiida boobu noonu jàngale gii ñu ko fiy jàngale ak tasaare gi ñu ko fiy tasaare yow nan nan nga ko gisee ak daawa boobu noonu. nan nga ko jàngate li ma laaj sëñ Moustapha léegi tamit ci sa gis-gis maanaam jeexit yi nga xamante ni mën na koo indi ci mujtama bi ndax man dama damaa jàpp ne te boo xoolee ci àdduna bi réew yu mag yëpp dañ koy def donte la jiitaluñ diine sax waaye seen gisinu àdduna dañuy bañ beneen gis-gis di dugg ca réew ma di fa tasaaroo ndax la mu fa mën a jur ci nit ñi bu seen gis-gis yi wuutee bu yàggee seenub ànd day jafe daa la jox jox misaal masalan tey jii Union soviétique amatut waaye li ñu daan wax xal la guerre froide ak xar bu baari da taxoon na américains yi daawuñ may mennum réew moo xam ne teg nañ fa loxo ay communistes yi ñëw tasaaroo fa ndax buñ fa buñ fa tasaaroo seen pas-pas bi ñuy indi wuute na lool ak pas-pasu libéralisme bi nga xam ne wala capitalisme bi nga xam ne moom la américains yi doon def. fii tamit kon dafa mel ne bokk na ci li am solo ci aw xeet ndegam ñun ñoom dañoo jàng di teg ci diine rek ñu ne ñu ngi jàng di teg ci diine mu tam li ñu li ñu jàpp ñun wóor nañu. jeexital yu yu yu doywaar yi nga xamante ne ni bokk la muy gën a jur la ca jiitu mooy ñàkk sécurité bi nar a am ci biir jullit yi ndax ku xool Sénégal ay at ci ginnaaw rek lépp ñoo ko bokkoon bu dee ci xaq yi dañoo bokk benn pas-pas bi bu dee ci mazhabul maliki yi ñoo bokkoon benn pas-pas bi bu dee ci sulóob tamit muy tasawuf ñoo ñun ñëpp ñoo ay mu tasawufam la doonte la ay turux mu mu mu mu muxtalifa la